السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم mbokk yi safo la RTS rawatina ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun fajar wu nekk ci jotaayu biddeewu xeet wi ñu ngi amati mbégte di janoo ak yéen di ànd ak yéen di sant sunu borom subhanahu wa di ko ñaan moom yàlla yàlla ñu defal tawfiq defal ñu salaam defal ñu jàmm jàmm jim ñu may ñu yeewoo ko yàlla na ko saxal ñu yendoo ko yàlla na ko saxal ci biir réew mi mu sax mu sax fi dàkk ñu ngi di ziyaar di nuyu kilifay diine yi di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanal tamit yal na leen yàlla subhanahu wa taala kattanal yal leen yàlla subhanahu wa taala dëgëral defal leen xifda defal leen riaya sàmm leen wottu leen nangul leen effort yi nga xamante ne moom la def ci biir diine ji niki noonu tamit la ñuy ziyaare di nuyu kilifay réew mi ñaanal leen borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla dëgëral leen yal na kattanal leen ba fi ñu bëgg a joow senegal Sénégal yàlla subhaanahu wa yombalal leen mu nekk yoonuk émergence yoonuk yokkute yoonuk li nga xamante ne moom mooy jubal jubbanti ak li nga xamante ne moom mooy jàmm salaam niki noonu tamit la ñuy ñaanal kilifay kër gi la RTS ñaanal leen borom bi subhanahu wa taala na leen yàlla subhanahu wa taala kàttanal yal na yàlla subhanahu wa taala defal leen ndam ci sas wi nga xamante ne sas nañ leen ko niki noonu la ñuy ñaanal képp koo xamante ne sa xëyukaay mu ngi nekk ci biir kër gi yal na la yàlla defal tawfiq yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla barkelal li nga xamante ne moom mooy la ngay yëngatu yal na ci yàlla subhanahu wa def barke noonu la ñuy ñaanalee ñi tëdd ci lalu hôpitaux yi ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala yal na leen yàlla subhaanahu wa defal aafiya defal leen shifa goo xamante ne du romb benn jàngoro ci seeni yaram niki noonu la ñaanal ñiy caabi féete ginnaaw ñu nekk ci bërëbuk yarukaay yi ñu tënk seen dem ak dikk yal na leen yàlla subhaanahu wa taala dindil tiis teggil leen li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi ba ñu dellu si waat ci pencum senegal ngir ne Sénégal doomam yépp la soxla ku ci nekk ci doomu réew mi élément nga boo xamante ne réew mi soxna la leen sunu jotaay bi mujj gisoon nañ taxawaay bi Omar ibn al-Khattab radiyallahu am keroog ba mu déggee ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna ak ne Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu delloo si waatee nit ñi ci keroog xew-xew ba xamal leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu yàlla wàcce woon na ci moom laaya woo xamante ne mooy xamal nit ñi ne Muhammad de aw yonent la ni ay yonent jiitu woon ko dina musa faatu wala ñu rey ko comme ni ñu reyee yeneen yonent yi lu ci munti xew fexe leen ba sax ci diine yàlla ji wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila nqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi llahu shakirin ginnaaw ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wuyee boroomam saxaaba yi ridwanullahi alayhim gunge ko ci wàccuwaayam bu mujj moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne faaw ñu ut wuutale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne mooy yittewoo mbiru jullit ñi koo xamante ne mooy jiite jullit ñi yittewoo li nga xamante ne moom mooy seeni mbir parce que ay jullit ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñetti jullit waru ñoo tase ci bërëb lu dul ne dinañ tànn kenn mu jiital leen sino buñ ko deful seytaane mooy doon seen kilifa seytaane mooy doon seen jiit donc rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo fi nekkoon wuy jina boroom mi te ba muy dem dénkaanewul wax ne diw na ma wuutu donc ay julit dañoo war a waxtaan seen biir xool kan moo war a wuutu jiite julit ñi ci li nga xamante ni moom mooy euh, kilifteefu jullit ñi ci loxo kan lañ ko war a teg ba ñuy waxtaanee ak biddeewu xeet wii di abu Aboubacar radiyallahu anhu waxoon nañ keroog taxawaay gi nga xamante ne moo xewoon ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ci biir taxawaay boobu Omar ibn alxataabi radiallahu anhu def cee am taxawaay gu ama am solo ngir ne nees tuut juyoo gu rëy doon am diggante jullit ñi comme niñ ko waxee woon ci jotaayu ba ñu tollee ci point bii nii ci dundu Aboubacarin Siddiq radiallahu anhu xam ngeen waa Lansaar ñoom wutoon nañ fu ñu wéet di xool kan la ñuy tànn seen biir mu nekk xalifatul muslimin ni ki noonu tamit mu muhaajiruun yi mooy tamit weetoon nañ ci aw bërëb doon diisoo seen biir di xool kan la ñuy wuutal mu wuutu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci fàttali rek suñ waxee mu muhaajiruun mooy ñu jóge woon Màkka ñëw Médine suñ waxee al mooy ñu fekk baax Médine ñi nga xamante ne Médine lañ dëkkoon foofee la Omar ibn alxataabi radiallahu anhu yàlla subhaanahu wa taala tàggat ko mu taxaw taxawaay gu am solo taxawaay goo xamante ni moo tax ba jullit ñi féewaloo amul seen biir wuute amul seen biir moo dina Omar ibn alxataabi radiallahu anhu dafay wax ne ñëw daa di wax waa lansaar ne leen alastum taalamuuna anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xanaa da ngeen a fàtte xamoo leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa santoon na Abu Bakar mu jiite nit ñi te yonent bi mu ngi dund ndax am na ci yéen kenn koo xamante ne bëgg na jiitu Abu Bakar ñoom ñëpp ñu daal muslu ci yàlla ci seytaane kenn ci ñun buggul jiitu ki nga xamante ne moom mooy Abu Bakar bés ba ca tool bu omar ibn alxataabi radiallahu anhu daa di ñëw yéeg ca kaw minbar ba daa di wax ne amoon naa yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg ak ñun lool dund ak ñun ba ñun ñu jiitu ko mu des sunu ginnaaw di dund mu suñu jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñun dinañ ko njëkk moom dinañu njëkk faatu li ñu jàppoon moo dinañ dañuy faatu bàyyi ko sunu ginnaaw moom rasulullahi sallallahu alayhi wa mais nag comme que yonent bi sallallahu alayhi wa sallama faatu na yàlla subhaanahu wa defal nañu sunu biir leer goo xamante ne buñ ko toppee dinañu gindeeku te Aboubacar moo nekkoon saaxibu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama àndandoog yonent bi alayhi wa ñoom ñaar ñoo nekkoon ca biir xuntu ba donc moom laa gis ne moo gën a yeyoo pour jiite seeni mbir jug leen ngeen jaayante ak moom fekk ne amoon na kuréel goo xamante ne jot nañoo abu Aboubacar radiyallahu anhu fële ci saqifatu bani saida mu nekk jaayante gi nga xamante ne nit ñi jaayante nañ ko Aboubacar ci biir li nga xamante ne moom mooy jàkka ji ci loolu ci la taxawaay gi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu taxawaay ci la fayee fitna goo xamante ne moo naroon a juddu diggante jullit ñi kanaawu muhaajiruun yi war a taxaw fële di tànn kuy wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñoom lansaar tamit taxaw fële di xool ci seen biir kan la ñuy tànn mu doon seenu kilifa jiite li nga xamante ne moom mooy jullit ñi donc ci taxawaay gu mat sëkk bi taxawaay wu rafet wii nii ci la yàlla subhaanahu wa taala fayee li nga xamante ne moom mooy fitna googee naroon a juddu ci biiru jullit ñi effectivement fitna la goo xamante ne bu tàkkoon kenn xamul fan lay yem parce que waa Lansaar jàppoon nañ ne ñoo gën a yay pour wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ñoo ko dalal ñoo ko fat ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo ko yaatalal seen biir dëkk muhaajiruun yi jàpp ne ñoom ñoo gën a yayoo ci wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom la fekk baax mais yàlla subhaanahu wa taala jaarale ci omar ibn alxataabi radiallahu anhu ci taxawaayam gu am solo gii nga xamante ne suwar du ko ko fàtteel du ko ko fàtteel te mooy mu fexe ba jullit ñi benn la seen kàddu ñu jiital ki nga xamante ne moom mooy abu bakarin siddiqi radiallahu anhu ba ñu jiitalee abu bakarin siddiqi radiallahu anhu omar ibn alxataabi radiallahu anhu taxawul seetaan ko mais da koo gunge ci li nga xamante ne moom mooy mission bi da koo gunge ci kaw li nga xamante ne moom mooy xilaafa gi taxaw taxaw ko taxawaay gu ama am solo fépp foo xamante ne Abu Bakr na Siddiq radiallahu anhu soxla na ko Omar ibn alxataabi radiallahu anhu daal di ñëw taxaw ci wetam taxaw taxawaay goo xamante ne gu mucc ayib la radiallahu anhum ajmain ñu joxe exemple bu ama am solo ci wàlluk nanguk li nga xamante ne moom mooy kilifteef ci nit ki ak sa daraja lu mu munti toll ki nga xamante ne moom mooy yore kilifteef gi ni nga ko war a nangulee fàtte li nga xamante ne moom mooy say fàtte li nga xamante ne moom mooy sa say say daraja fàtte li nga xamante ne moom mooy ak kilifteef goo am noonu la Abu Bakar na Siddiq radiyallahu anhu ak Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma jamian dundee ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga li nga xamante ne moom mooy qualité ku ci nekk ci ñoom ñaar am nga loo xamante ne yàlla subhaanahu wa taala def na ko ci yow nga koy incarné mais keroog ba ñu tànnee Abu Bakr na Siddiq radiyallahu anhu jiital ko Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu da koo nangul mu nekk exemple goo xamante ne dañ ko jox l'humanité yëpp ci ay nit mën nañoo ànd ku ci nekk am li nga xamante ne moom mooy ay qualité yu nekk ci yow mais nga nangul sa moroom kilifteef gi ko yàlla subhaanahu wa taala jox te jurul ak xiiro jurul li nga xamante ne moom mooy ŋaayoo te jurul ak noonoo diggante li nga xamante ne moom mooy ñaari kilifa yooyu di Abu Bakr as-Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maa ngi koy wax Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu dafa taxawoon taxawaayu kuy jàppale Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ci kilifteef gi ko yàlla subhanahu wa taala nattoo moo tax bépp liggéey bu ak projet bu abu Aboubacar na Siddiq radiallahu anhu yëkkati woon ngay fekk Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu mu ngi bokkoon ci ñi jiitu woon pour exécuter li nga xamante ne moom mooy projet bi une fois projet bi leer ci boppam ñu daal di koy adopté da ngay fekk Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu mu ngi jiitu ca kanam pour mun a réaliser li nga xamante ne moom mooy projet boobu bokk na ci projet yi ñu réaliser ci jamonoy Aboubacar na Siddiq radiallahu anhu mooy dajale alquran dajale gañ doon dajale alquran Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf cee joué rôle boo xamante ne bu rëy a rëy la xam nga yonent euh, li nga xamante ne moom mooy alquran ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale wuñ ko woon ba ci jamonoy Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ginnaaw bi jullit ñi participer ci mooy guerre boobu nga xamante ne xare woowu nga xam ne jullit ñi dañ cee ñàkk ay bakken yu bëri ñu ëppoon ci li nga xamante ne moom mooy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñi mokkaloon alquran ci diggante xurubu ridda ci la ñu faatoo abu bakar radiallahu anhu umar ibn alxataabi daa di ñëw di xelal ko ne dama gis alquran gii nii ñu dajale ko ngir ne buñ ko dajalewul ci téere te ñi mokkal alxuraan dee bàyyiwu leen ginnaaw ñu ngi nii di faatu xoolal ci xeer bi bii ñu génn xare bii ñu génn rek ñu bëri ci ñoom faatu nañ boo moytuwul alxuraan dina na sax si la Umar ibn alxataabi radiallahu Abu Bakrin as-Siddiqi radiallahu anhu pour ñu dajale li nga xamante ne moom mooy alxuraan Abu Bakar daa di koy xamal ne ko li afaala cheyan lam yafaalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naka laay defee loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko woon fan la Aboubacar mujj ak Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci dajale li nga xamante ne moom mooy alquran soo ko bëggee xam xaar ñu si sunu jotaay bii di ñëw ñu woy di continuer ak sunu biddeew Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ci taxawaay gi mu taxawu woon ba ñu dajale alquran woy leen di continuer ak sunuy programme programme RTS jeexul yeneenu programme yu am solo mu ngi ñëw ci ginnaaw man nag maa ngi leen di wax ba beneen yoon inchaa allah ak beneen jotaayu biddeewu xeet wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu